parti africain pour la démocratie et le socialisme mu ngi feddaliwaat àndam ak coalition Diomaye président gannaaw élection présidentielle yi ñu weesu parti bu Mamadou de Decroix fësal na yéeneem ngir wéyal aventure bi ak régime bi nga xam ne moom moo fi nekk. Euh, ginnaaw wooteel nañu ko 12 ans ñu ngi war ci opposition ñu wooteel nañu ko gagné na war nañu koo mën a parce que li ñuy def du ñoom ñoo ko moom. nu keneen di war a di ci wër ñëw di ci non non non euh, tool la boo xam ne ñëpp dañ cee war a dal. li waral loolu nag mooy rupture bi nga xam ne président Bassirou Diomaye fay woote na ko ak projet de société boo xam ni dafa méngoo ko seen vision état. loolee nu dugaloon ci politique moo doon li fi tubaab yi bàyyi woon bi muy dem ñu fexe ba jële ko fi ni nu gisee. Bassirou Diomaye di ko doxee mesures yi muy jël et cetera dëppoo na ak ñun li nu jàppoon ne mooy yoon wi. leneen li mooy coppite yi nga xam ne njiitu réew mi woote na ko moo xam ci wàllum politique wala ci wàllum institution yi. ku ne danga naan réew mi dafa war a tegu ci yoon dañ ko war a nit ñi dañoo war a jubal war a ñoo euh, jël xaal alalu réew mi. waruñoo kii nii justice bi dafa war a mel nii jàng mi nii wér-gu-yaram gi nii mbay mi nii kon bu fekkee ne ñii ñëw ak yéene yi ñu euh, sumb dama ci jàpp pousse pour mu dem pour ñu bañ a daal loolee lépp nag moo tax moom di Mamadou Diop Decroix ak partem fas ni liggéey ak président Bassirou Diomaye fay ba noppi nekk ay acteurs yu am solo ci projet de société bi nga xam ne